pare nga ci mais lan mooy doon sa sa destination finale da ngay observer da ngay delluwaat Benno Bokk Yaakaar dangay dem jàppale opposition bi lan lan lan nga. d'abord man masuma génn Benno. Hmm. ndax dina ko ba ñuy créé Benno ñi ñu ñooy candidat Benno nekk yoon Benno. kon Benno ba koy créé muy entre les deux tours en ma nekk Benno Siggil Sénégal. ànd ak Moustapha Niass ak ñoom Kédé Cissé Wane ak ñoom El Hadj Momar Samb ñoom Moussa Touré ñoom Dansokho yàlla ko yàlla yërëm am Abdoulaye Bathily ñoo ñëpp benn sigli Sénégal yi dekkoon ak Abdou Latif Coulibaly ak Penda Mbow ñu dem fekki Macky Sall ak ñoom Mahmoud Saleh ñoom Seydou Guèye euh, ñooñu ñoo formé woon ak Jean Paul Diaz ñooñu ànd ak Macky Sall def Macky 2012 ak ñoom Moussa Diakhaté après benn tanoor ñëw benn tanoor boo àndoon ak Lamine Sabané ak Ali Aïdar dafa nekk sa ministre premier gouvernement Macky Sall tanoor ko proposé ministre réew mi ñëw tax mu amoon ay ministre aussi au départ Omar Gueye ak Pape Diouf idi bi ñu demee député assemblée ñoom ñoo ñoom ca la ñoom ki nekkee député ñoom ñoom bokku le jeune bokkum. ñoom Thierno bokkum ñoom Barthélémy fekk ma demal sama bopp ñu ñu def ñoom ñoom làng def groupe loolu mooy benn si benn bokk yaakaar ci la mais ba ñu wut dama demal sama bopp. donc ma ne la kon man candidat benn laa un président Macky Sall suma xarit moom moo dem tànn Abdou Ba. bu ko tànnee li ma ko wax mooy man de wal fal naa la 2012 ànd ak yow falaa la 2019 loolu moo tax présenté wu ma 2019 2012 Moustapha Niass moo tax. waa li li mu wax def ko 2019 ma ne sama xarit falu na nañ ko falaat am na droit deux mandats moo tax jiw ma tax présenté dama ko jàppale ci campagne bi on a fait le tour du Sénégal ba bi muy daw Fatick wàcc ci oto bi maa topp taxaw ci kaw moom muy daw ci suuf wuti stade la am na wala amul en 2019. Mm. bi Macky di daw wàcc oto bi di daw. Mm. ba neen dafa jàpp état yow ñoo ànd maa ngi nii ñu ànd ñoom Askia Touré ñu ànd foofu ñi ñoo àndoon. ak Souleymane Jules du dëgg léegi dama ne la man masuma génn Benno mais actuellement nii maa ngi xoolaat suma position